di leen jaajëfalaat bu baax a baax saasu su ne yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp à travers toutes nos différentes plateformes sur Talibé TV macha allah seen émission bopp gi di pencum daara tey nag ki ngeen bëgg lanu dalal tey ki ngeen sopp lanu dalal seen ustaasu bopp gi ki nga xam ne macha allah réew mi ñëpp manko ni moo fi mën macha allah ci xam-xam macha allah ci yar ci wax fa dëgg yàlla xam-xam gu leer naññ muy ustaaz Mouhamed mbay Jamil ustaaz maa lay ziar. maa ngi la koy delloo borom dàkkantal bu rafet bi te neex te doy sutura ci àdduna ngay dund ñu ni kee di dem kan la ñu ni bëgg bàmba la kenn dootu laaj ci ban tarixa la bokk nga dund ba am téeméeri at ak fukk ñu tëral la ci jaag ni kii kan la ñu ni bëgg bàmba fun ko indi ñu ni tuubaa ñu dekki yowmal xiyaam ni gaa yi taxaw leen yow noo tudd nga ni bëgg bàmba doy na ci teraanga muy dàkkantal bu rafet rafet rafet nuyu nag sama xarit bi nga xamante ni moom nga àndal tabaarakallaahu ñaanal ko moom itam jàmm ak salaam ak sutura caméraman bi nga xamante ni daanaka euh, caméraman pilis laa ko tuddee ndeysaan xam naa bu doon mooy feeñ ngay toog nga taxaw fa mu taxaw mu ñëw toog fii lu ñàkk am ñu ma laaj numéro am <laughs> waaw ni ma oustaz borom bi kan la tabaarakallaahu <laughs> maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp waaye maa ngi nuyu télé bi nga xamante ni site internet bi nga xam ne ci laa bokk maa ngi ci biir te mooy Tabiba TV di nuyu ki nga xamante ni euh, tabaarakallahu mooy borom euh, médicament yu baax yi. ki nga xamante ni bokk na ci ñi nga xam ni seen jëmm ndax kenn xamul yàlla ak jaamam waaye seen jëmm nit ñi rus nañu ko te bu nit ñi rusee seen jëmm amaana malaaka yi rus ko amaana bu ko malaaka yi rusee yàlla rus ko muy seri Jibril Ñang mi nga xamante ni tabaarakallaa kenn la ci réew mi ñu tuddee ko l'homme social l'infatigable yàlla yàlla sàmm ko moom itamit yàlla dëgëral ko yàlla kàttanal ko ba lu mu ñaan yàlla nangu ko ci barke soppeem ba yaakaaram ba borom tarixa bi Cheikhuna Tidiane macha allah Serigne Jibril daanaka jamono ji sax ma nga ca soppeem ba Seydina Cheikh ca Fayz macha allah yàgg fa lool macha allah ñu ngi ko fay ñaanal moom it pour mu ñaanal nu yàlla na yàlla def jàmm barki bi oustaz ñu bëgg waxtaanee euh, réew mi ci gis-gisu diine macha allah muy pencum daara oustaz bi nu njëkkee ci benn xew-xew bu amoon njëy benn euh, am na ñu ne imaam la am na ñu ne déedéet bilaal la. don ñu xatal ko ci benn jakka mu bayyi ka fa dem di tabax jakkam bañu fekk bañu ñu fekk fa ndogal am ci bakkan rot ci muy bakkanam lan mo ci taxawayu diine buma lay wax li ndogal moy ki dox te gisul lu courant mu deggu ko mu mas ko lolu ndogal la olof neena ndimbal na ca fekk loxoy borom gatcha la ci rew mu julit nek ngeen bokk benn diine bokk benn penku di xatal as goruk julit ni yow ba muy génne di tabaxi beneen jumaa convaincre ki bëggoon a tuub pour dugg ci lislaam parce que danaan diine ji li fi am bi ci des mooy diine lislaam laa la wax ni la man xatala muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannam alquran nee na ku rey nit te tey ko sa fay mooy safara bëgg bàmba ku nit te tey ko safara mooy sa dëkkuwaay génn na ci xatal bi ngeen ko xatal waaye Euh, yoo wutal ngeen ko yoonu lay yu aljana wu yomb ta neex mooy ci luñ ko rey ci jaamu yàlla ci luñ ko rey ci jihaad ci luñ ko rey ci shahid lañ ko rey ndax jumaa la mais am na jullit ñoo xamante ne tey jii moket bu ñu laal ci jumaa ji ñu sàcc jaay benn waaye wax na wax ju neex nee na nit ñi segam ñooy tafu bay tafu yàlla néegu yàlla ñu dugg sàcc moket sàcc nangam koo xam ne jullit la ni yow mais jumaa kenn fanaanu fa kenn yendu fa kenn lekkewu fa bokk kenn naanewu fa waaye diggante suba ak geewe lan la la fa gor war a def ba ba war laa xatal ci taxaw julli génn kenn ku ne jëm sa kër pour man doomu aadama mbon laa mbon paaseetul di xeex sa moroomu jullit ci jumaa ba mu jugee ci jumaa bàyyi la ak moom wala jàkka dem di tabax jumaa wala jàkka foo xam ne dañ ko faa may diine lislaam ku ci bëgg lu maandu deel wax dëgg bu dee ci jumaam lañ ko fekk wala ci jàkkaam lañ ko fekk ba dóor ko xolal xool ko rek dañ koo tooñ waxtuma laak ñu koy dóor ba koy rey bëgg Bàmba ki nga xam ne ci teraangaam nga ko fekk muy muy tabax jàkka wala muy tabax jumaa nga fekk ko fa néewal ko doole ba rey ko bëgg Bàmba am nga ci kaso way wudul fay dëkk ba nga dëkk boo fa dee delloo am nga wayu dul fay li way wi di ñàkk fay yépp li nga wutal sa ay doom ci way moo ko gën a yées mooy foo bëgg a takk ji foo sa doom bëgg a takk ji jabar ëllëg nañ laaj kuy baayam mm. ñi toog ci seen biir dina am ku di tax làmmiñ dee benn waay ni ko noo kii nii mooy ki papaam rayoon paaya te Sénégal mm-hmm. dëkk la boo xam ni xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam mm. ñëpp doo gis kenn ku kontaan ci ñi rey ki rey ki nu rey ak lu mën a xew ci àdduna ki nu ak lu mën a xew ci àdduna ñëpp dinañ ko jox dëgg te liñ ko rey ba neex la ñii ña nga ca kaso ba xeebu xañ seen njaboot atte bu dunu xam kañ lay jeex xañ seen njaboot dund way jur kële ma nga àjjanay xewlu mu ndax mu tamattaan bi sixatin mu ngay xéewlu ma ngay bànneexu parce que ci yoonu yàlla lan ko rey bi ci des mooy reyuñu ko ci njaaloo reyuñu ko ci dara diina lan ko rey ci mbaax lan ko rey kooku layal ko yomb na teg nañ ko ci kanamu jàkka ji wala kanamu jumaa ji di ko jullee nit ñi wax mbaax ci moom góor gi ko may teere bi seede na ko ci liñ mën a gis ni moo ko ko may kon lew na ko wala déet leneen lu ci waaye wax lu dul ni ñoom ñi ko def ñu tuub jéggalu yàlla ndax du ma ni dañoo war a dem safara yàlla dafa ni fa jaza uhu ki rey te tey ko fa jaza uhu fayam mooy safara waaye nag mu tuub jéggalu yàlla gis nga seytaane soxlawul ki ci baal ba soxlawul ki naan sàngara waaye mu ngi soxla ki naan allahu akbar xoolal ni mu def yu was su suuf fi suduri naas jax-jaxal ay góoru jullit ba ñu songu seen moroomu jullit te maa la ko wax ñoom ñu ngi koy réccu parce que xam naa ni def nañu ko ngir tàngaayu deretu doomu aadama waaye leer na ma ni ñu ngi koy réccu inna shaytaana naka seytaane yi dafay daw alal insaani ci biir deretu gor majjiri ya dammi comme ni deret di dawee noonu la seytaane di def tey tey yonent bi bëgg bàmba lu yonent bi wax dëgg la lay sa sadidu bi suratin innama sadidu man yamliku nafsahu inda al ghadabi yonent bi nee na mer nekkul ci fët fët di dóor di def nangam ñu ni yonent bi kan mooy jàmbaar mu ni ki am maîtrise ba mën a maîtriser boppam saa yu meree la fekkee nga taxaw toogal bu la fekkee nga toog tëddal yenn saa ay góor xàcc sax war a dóor soxnaam ni ko budul woon sama mbëggeel nga xam ni ko wërañ wan ko ginnaaw. ah mais nit ki tabax nekk man mënuma comprendre ci àdduna ay jullit yu xëccoo imaam ba ñu tëj jumaa wala jàkka mënuma ko comprendre. mais ay jullit dégg naa bërki démb xoolal fii. sikap ci ay imam bi mo sàcc ay 3 millions nangam ak nangam ak nangam ak nangam mais lan motax amna ñu ne ci ginnaw diine di fowee diine personnalité bi dafa melni dafa rir ci réew mi Willy Pandé yi dafa rir bo démé ci théâtre kat yi xoola jamono yi ñi ngay ci fay na fayuma té ya bokon ba muy neex safkani lutax ba muy neex waxoko ba nga genn fa dokoy wax gor wéet gore wéetaliku gore li ma séqoon ak yow ba bi nga may wo dew ma ci média yi ni yaa ma bu ndeme ba sekkatuñ ko ma bàyyi la sa bopp yàlla nee na ñaari góor lu ñu séq ki ci gën a rafetal kooku laay sagal fa inna allaha la yudiu ajral muhsinin yàlla du sànq jëfu kuy def lu baax boo ma waree fay fayoo ma ma laajaat la ko fayoo ma ma bàyyi yàgg boo ma ko fayut yàlla ko tooke ci sa yaram nga fajoo ko ëpp di nga feebar ma ñëw tiim la ne laan xëyaa mu fay la ko du la teree dund mu ñàkk la ko fay du la teree dund mais lu naqari nit rek mu dem ci internet xeeblu boppam toog ñaari fan ñu ko waroo koon def ànd ay gor weerante ci télé wala ci média nañ ko moytu baaxul macha allah sa sa sa sa waa ji abba day démb dafa wax ni euh, bu ngeen di ànd muy neex da nga koy cons te kenn du yëg waaye bu problème amee rek ñëpp yëg ko nee na est ce que tamit bu problème amee jotul ngeen régler ko àllam ya parce que loolu mooy personnalité loolu mooy dignité gis nga saa neex dama ko ñeewante wallahi yàlla xam ko dama koy ba ma ni njiit metti parce que lu ñew lu upp ci mom lay dal pourtant Aziz ñaan a fi pourtant Cheikh Ndiaye fi mais xam nga lutax tagge bo gis am parce que sa neex moy leader bi lu ñew day dal ci kawam mais nak gis nga wan la mi la parce que amul connexion lu 250 wala wifi jambour lay sacc code bi mm. du setan ba mu jeex xam nga titre te jamono yi xale ñëpp ay saaga ñu ngi saaga sëriñ si ñu ngi saaga ustaas ñu ngi saaga musiciens yi ñu ngi saaga comédiens yi olof nee ne weddi du ragal teggi tuuma la mais man dama leen di wax ni leen bu coow amatee ci seen biir site internet bu la seet ne ko ah diw nag sama sama sama sama sama nawle la sama xarit la gis nga wax ju rafet jooju dina tax moom mu jot ko ba am ker sa fay la alaaji yoral nga ma site internet seet ma ne ma ustaas yow ak bugaan lu ngeen jote man laa wax dëgg yàlla nag bi may jël kenn xamuma mu jo jël ma ci teleem di ma fay dinaay am ci teleem sax dinaay am ci biti sax lu ma teleem dul fay yàlla moo dogal suñu ànd fii layam waaye xam naa ni buggaan nit ku baax la xam naa ni buggaan nit ku tedd la bu wóoree ba gis vidéo boobu sax mën na ni xaaram waat oustaz mu ñëw liggéey si waat mais bu bu boo jëf jëflanteeg nit ci mbaax ngeen dem ba ci yàgg nga naan diw fayu ma nangam diw fayu ma nangam te yaa ngi dund yaa ngi añ pour man dafa teeraateer ci bëgg bàmba kilifa du def loolu site internet na la seet lan nga jote waa sole euh, diwul non ah ñoom diw kat ah, dama gis ne àndatoo ak ñoom nga ni mais nit ku nekk am nga droit sax yenn saa yi nga sonn oto joxe siiru du sa du damay bi wala déet man est-ce que seen TV laay mais est-ce que émission yi am seen TV yëpp bokk bokkuma ci dafay am yu may bokk am keneen di bokk àdduna noonu lay doxee nit ñi rafetal àdduna jëm ci kanam yàlla nee na ku rafetal ma jàppale la ku ñaawal ma seetaan la maay borom sax maa leen ci may maay borom sutura maa leen ci may ñaari yooyu ku ma gis mu ne ci yow ma làmbaat la mbalaan sutura boobu te bu ma la ko làmbee loo tëra di di sa tànk du feeñ dox la ci loolu Sanekh ne na ñoom fay nan ko ameeluñ ko bu fekkee ci coow li muy wax Sanekh nangu na ni choix bi xëy na fayuñ ko wax na ko carrément ndax corona bi te loolu xel nangu na ko waaye ci bee moom nee na fay nan ko te it mu wax noonu des na am est-ce que tamit soxlawul ñu rafetalaat yi ci koo xam ne taggoon nga ko démb tamit xas ko tey. jarul sax parce que damay faral di wax ni muy vieux muy keneen vieux mën na maa sopp alias Diallo du xam nga ko tamit musique léegi nii rek mu ngi wax seex Sarr ni ko xoolal yàlla ni mu yéemee Oustaz Mouhamed Mbaye mii dama ko bëgg bëgg bëgg ba dafa yokk sama cofeel ci yonent bi. Cheikh Yérim Seck démb dama taxaw gisuma ko parce que dafa ay veeram dafa daw ba wëndeel otoom konte xaalis compter compter compter ni ma ni ma yéegee yow ci yonent bi amul ci àdduna jox ma xaalis. yooyu nag boo tollee foofu waratoo far waaye war ngay àtte dëgg ma ne yooyu boo amatee ñoom ci seen biir coo yooyu nañ ko waxtaane à l'amiable az euh, saaneex jox ma aw ma saaneex jox ma aw ma toogal jàpp ci yàlla di ngeen daje ci xew te li gën a neex ci ànd mooy koo dajeel jour mu sëgg waaye fu ngeen daje te ànd tilimal nga seen ànd ak at yi ngeen jot a ànd yàq nga seen ànd ah euh, confiance pour mu amati ci dootul yomb lan moo ko jar xaalis ak jigéen dafa yàq ànd boo ci bëggee tedd faw nga doylu faw nga yeewu faw nga xam communication gis nga communication bokkul ak firi man mën naa nekk firi kat nekk nit média ñu may jox tem ma koy joxe mais bokkul ak communication théâtre mën nga koy def mais bokkul ak communication am na ñoo xam wax mais bu boobaa demeel sa xel ah diw de sama la wala sama la te nit ñi dañuy bàyyi xel leblante nit ñi dañuy fàtte leblante démb ñoo la yoroon wala démb ñoo seqoon nangam wala nangam loolu da nga koy jël teg ci sa kanam ba lu la nit defati nga mën koo nëbb mais Sénégal léegi dafa mel ne natt ku teggi bàyyi bàyyi Sénégal moom wax ma wax ma Sénégal ngay xëy suba ba ngoon ndax doo dégg kilifa guñ jiñ ay taat Sénégal wax ma suba ba ngoon ndax doo dégg ko fi amee bor Sénégal noonu ndax doo dégg suba ba ngoon musicien bu def nangam wala kat bu def nangam te lenn rek moo bon ci àdduna mooy def lu bon ba pare di ko tiitaroo ci télé yàlla mën na laa suturaal waaye boo weeree sa bopp mu fekk la ca te lim la ci wane mooy teg la feebar boo xam ne ñëpp dañ xam ne yaa waxoon nangam toog ci télé ñëpp di la xool nga ni damay fóonaate toog ci télé ñëpp di la xool nga ne xale yi dama ciy laal toog ci tele wala site internet ñëpp di la xool nga ne damay def nangam yàlla ni ma suturaaloon la ba nga def ko ci néeg yow yaa mën a weer sa bopp sama jaan wàcc na comme yow yaa ko def nag te man yàlla ma koy tere dinaa jàngal nit ñi ci yow ni li nga doon def dama koy tere teg la feebar wala ma def la loo xamante ni ku la gis dina yërëm wala ñu kettal la yàlla ni mu ngi nii de moo ko feeñal de moo ko te ko yàlla sutural na nga am sutura waaye ku xawil sa bop yàlla jàppale la ah yàlla nag mënul muy taw nga génn ci biti naan yàlla bu ma taw yàlla bu ma tooy mu ngi noonu. comme yéen ñi nga xam da dana ngeen ne ci télé yi di ay célébrité est-ce que di ngeen préparer sen njabot ci nit ñi buñ la attaqué wala bu la buñ la buñ la sosalee est-ce que ndax tamit njaboot dafa jege ba lu la laal mu yëg ko. damay dégg ñu naan préparé loolu kenn mënu ko préparé bëgg Bàmba gis nga koo dégg mu naan la dama ñeme coow coow kenn mënu ko affronté gor pire du affronté coow. billaahi man bu ma gisee ku ma saaga ci internet samay tànk day dee man. bu ma gisee ku ma saaga dinaa dem ba lijjanti ko ay ay ay du ma non damay xool commentaire nga saaga ma ma dugg ci sa site laaj la lan laa def. bi may xool tey si suba ñu ci tudd euh, Gaston mbeng dama am lu ma naqari. ma ni ay gor sa ay baayu jàmbur nañuy natt ki ñu koy def baayu jàmbur la nanu natt ki ñu koy def ci askan wu tedd la bokk. lu mu gàtt gàtt bu ma duggoon ci mbooloo tey Gaston dugg ci mbooloo Mouhamed Mbaye dafa am cëru boppam Gaston am fa cëru boppam. mais loolu ñuy génn di yàq ay der gor nak politique bo xamanteni aduna la yam Senghor mi nga xamne mo fi ñëk doon président dem na Abdou Diouf jaar na fi dem na Macky Sall jaar na fi dem na legi ngeen màgget mu dess ci site internet di ñukay xolante nak lan deureum wala bëgg Macky Sall la taf la ci wétam gis nga xarito ak toubay ju xat ñoyam kuko ku bëgg forcer mu xotteeku kenn ku nekk natal li ngay tek sa morom gor nga neubal ko sa lol lol lol lol lol loolu doxal aduna mais du la naqare nga dem ci internet di, di yorel na ma kenn génn wax keneen génn wax kenn non non nañu bàyyi loolu loolu bokkul ci ngor bokkul ci respect yaa bokkoon ba neex <laughs> safkaani kay bi ñëwee yéey bu ñu taxawee tamit ci kaawu Gaston bi xale bi moom fi mu ne dafa dem ba avoué moom bëgg tappal Gaston mbon. mooy li ma la wax parce que xam nga lu tax xëy na amut weeruwaay bu mën a bàyyi xel. damay daanu yóbbaale gor buy daanu Gaston teralu ma miinante man fii laa toog télé laa toog wax nit du ni mu Mouhamed bay sama bureau la jóge démb bëgg bàmb ñaan naa lu gor di am ci àdduna ma jëndal ko sama bopp bu ba ko mënee du oto bu may xaar nit jëndal ma ko du kër gu may xaar nit jox ma ko du nàngam bu may xaar man li ma gën a neex sama àdduna mooy naay firi jàkkaarloog Serigne Mansour Sy Djamil mu kontaan naay jottali Serigne Ahmada Sy mu kontaan jeex na na am sama ngërëm ñaari way jur mais maa ngi lekk maa ngi naan xaru tabaski sax gor daf ma koy may ma dem jënd xar pour man man aw ma bureau bu may dem di fréquenter yotta saa yi laay dem bureau am te yaa ngi koy deg chaque jour. bureau am lay à part ça monsieur le maire Baara Gaye laay toog bureau am monsieur le maire Ndofène Fall ndoofeen Fall ba mu wàccee ba tey jaaratuma mairie boobu. te monsieur le maire bi fa nek gamu Tiwaawan may na ma khalis yone na ma khalis te dama ka message rek remercier ko donte ñu lu bon mais dama la wax ni la Gaston kilifa la ci rew mi am ay doom ci rew mi Gaston bokku na ñi tax Balla gay tabax. Gaston bokk na ñi tax Modou Lo tabax Gaston bokk na ci ñi tax ñi tax ñi tax ñi tax ñi tax ñu dul jeex bu tollee fii ak lu mën a am ci àdduna mu ne ku baax mu ne ku nangam wax naa la inna laaha naka yàlla hayyun ku bari kersa la sittiirun ku bari sutura la Gaston yor ay njaboot am ay doom xale bu jigéen bu jugee fële ah ñu mu wax ay waxam teg ñu commencé def ko politiser ko kii jël fii kii taf fii photo kii taf fii photo lu waaye nattoo góor gu yàlla suturaal ba nga wili ko yàlla nee na balaa nga dugg ci biir bàmmeel ma mën la ko góor daawuloo ne fii ay étaati jàmbur xëyul génneel boppam bay taati boppam te kenn forcé wu ko moo xëy yulli tubayam parce que yàlla yonent bi waxam wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa yàlla neen yonent bi nee na ku suturaal jullit yàlla suturaal la yow mënoo suturaal gor suba ba ngoon waxuma la dara mais Gaston am na ay doom yu nit ñi xam gis nga dafa am lu ñuy wax blessure boo xamante ne ci xol lay dox wallaahi xaw ma de mais xam naa ne démb nelawul mun naa nekk ku mën a defante nag parce que xamul tax dugal ci xolu nit lu tax mu gëm yombul. jabaram pour mu gëm ko lu mu gàtt gàtt dina ni ko loo fa doon def. wala beneen jabaram wala ay papa yooyu gor àttanu ko da ngay dof. waaw ndaw si bu ngeen xamante wul woon yàlla boo am jabar moo la mënta comprendre du ngeen vocalante lan nga war a séq ak moom yàlla boo am jabar joo xam ni ah, ah, ah dafa naan ndoxu détail. sangoo ndoxu détail diwoo diwu détail sol yérey détail soccoo soccu détail toog ci lalu détail jàkkaarloo kuy détail kañ ngay mucc ci moom muy wax nga bëgg nga bëgg a gérer dékku soxna yi bëgg a dékku coow li ci biti mais da ngay dof bu boobaa moo tax fii jamono toll damay benn waaye dafa ne ku ne xaaral sa bas am ñu ne déedéet mais wallaay wax na dëgg parce nit ñi nu ne gis nga. laa ilaha illallah yàlla mi aaroon aadama awa ba duggal leen ci aljanaam ja fa la leen seytaane fekk ba génne leen ku ne fii pour mun la doo dem ci kaw war koo gëm seytaane bu dee moom mën a convaincre mam aadama ak awa ba cuq leen génne leen aljana te ñun aljana la ñuy wari ñun moom mu fekk leen biir aljana cuq leen ba génne leen ñun ñu ne ci biti di wut fële Ah, xanaa déggoo li mu wax ci al euh, euh, euh, boñaa du ñun àjjana lañ bëgg a dem xolal aadama ak awa nekk biir aljana yàlla ni leen xolal def leen du leen neex waaye écran bee seen yoon newu ci mu fexe ba ni leen écran bee moo gën écran bi cuq leen ban waaye est ce que bàyyi nga xel li may wax maam aadama buñ ko mënee cuq ak maam awa ba génne ko aljana ñun ñi de bëgg a dem aljana seytaane taxaw ni mais yàlla moo baax ya ku bind seytaane du yàlla bu bëggoon noppal da koy rey noppalu waaye xam nga lu bëgg ñu am jom wani ni ni nga bañalee yàlla ñun non lan lay bañalee dafa samp ndëndëm ni yàlla afa bima ma waytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min min bayni aydihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aksarahum shakirin dina fi xaba def leen ay ngara tay ji seytaane mom mo bayiwul Gaston bayiwul kenen bayiwul kenen xamna ni ñaar lay daanelee góor ben lay daanelee góor ben lay daanelee jigen jigen bu fi daanu khalis la daanel góor gu fi daanu jigen la daanel góor seetlu góor bu ñaawee ba mel ni wantana mera ci ñaaw bu amee alal doon seef ji góor day ñaaw ba mel ni wantana mera góor day ñaaw ba da koy bëgg a dab di ko rëkk ndax ñaaw mais bu amee tuuti as xala jigéen ñi muy fréquenté doo ko ñeme xolal rafetal melal nu la neex boo moytu sax ki ñaaw ki pour xola pour wan ni la yaa dàq daf lay def gaar seetlu goloolu Ah, seetlul jigen ñi nek biir Dakar gisoo fi ku jël jank bu rafet ba fa rafet yam da ngay xol ben xale bu jigen bo xam ma bañu a tudd benn xeetu jaambur ndax nit ñi lañu gis bop xol ko xamanteni bu taxawé bu da tànki danaan hein dënn bi ne hein ginaaw gi ne hein nga duggal ko ci kër gi nga xamni ni boo tisi bi gëna rafet ci aduna mu jek ñu jël ko def ko jank ci biir kër gi parce que lutax dañuy dawalé seen ak jank bi mais sutura bobu mag ñi amon lutax duñ ko wat tek ci sunu kanam nit ñi bax gis nga fepp la damay wax ni même borom xam-xam yi ku ciy jàng xam-xam pour démentir sa moroomu gor sa xam-xam na sax na mais xoolal tey Moustapha si génn na wax Serigne Moustapha pourquoi que borom xam-xam yi mus ñoo def vidéo ko mus gis ci Sénégal borom xam-xam yi daje daf ay vidéo remercier Oustaz Alioune Sall temps bi mu def ci média mus ngaa gis ñu defal ko Iran Ndaw Moussa papa Moustapha Gueye mi law bu yàggul gis nga ñu defal ko ko borom xam-xam yi tant que deewoo duñ jooy duñ waa léegi. borom xam-xam bu wax benn rek mais balaa ngay démentir nit ki ci média ñaan ko audience toog ak moom bu dee boroom xam-xam la nga ne ko da ngaa ni nangam nañ ko waxtaane Seydil Hadji Malick nee na ku peegul faculté sharia yi am yëpp werante waru la man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu fi mahlakatin zaria wa innahu jaat ala sittina min baadi salaasa mi atin tuftina Alaaji Malick nee na 360 faculté moo am ku ko peeguloo werante ñun ñi am ci malik shafi Hanafi Hanbal rek di suñu bop kat mu dess ñaata 360 la wax faculté Alaaji malik neena na ku ko peegul waroo werante waaw yow nga am takari sax ben nga laal muy malik ngay laal wala nga laal shafi am na xam sax xamuñu Hanafi wala Hanbal mais nañu bàyyi wér gor waaw tabarakallahu bu ko defee yaa nii li diw ni ni mu waxee nangam masala bi nangam nangam am na ñoo xam ne dañoo gëm ba pare dégluwunul la sëriñ ba waxoon boo ko daggul fàtte nañ ko xam nga la neex gis jëmmi sëriñ bi daanu nañ am na ñoo xam ne ci làmb ji bëri yóbbuwu leen bàkkoo leen yóbbu bu mbër mi tus ñu génn di ñibbi am na koo xam ni seetaan Mouhamed Mbaye ci télé bi itteelu ko ban yére la sol tey am koo xam ne na ko seen rek am koo xam ne mu ngi xaar mu juum ku bëgg fexe ñëpp bëgg la di nga nekk naa féq mais ku fi yaruwul amoo sutura amoo teggin yàlla dina la weer ba ñëpp teg ci bët nan xoolaat suñu bopp ak lan. macha ci benn cooloo xam ni soxna su jëloon concours alquran muy soxna Ndate Cissé macha allah ci xëy na am na ñu rafet du ni Sénégal am na ndam am na ñu ni déedéet am na ndam waaye tamit xanaa baatu jigéen nekkul awra wala tey lan lan lan taxawaay la ci lislaam waaw baatu jigéen awra la. diine am xolal wa raafiu sawtan jigéen ju yëkkati baat wa aswaatu xaliha ak ay baatu feram xaraamu simaai araam na ci ñu déggu ko mis la chamsi duha comme jant yor yor araam na jigéen ju am jëkkër am facebook maa ko wax araam na jigéen ju am jëkkër am tiktok araam na na jigéen ju am jëkkër laa xam nga boo ma nee la araam na mooy koo xam ne da ngay feeñu jaayu ci parce saa yoo xeeñee imagine fer bi nga takk tànk yaa ngi dox góor di ko dégg yàlla ngi lay bindal bàkkaar wa rafiu sama sëriñ ko wax de Seydil Haaji Malick si wa rafiu sawta nee na jigéen ju yëkkati baatam wa aswaatu xaliha ak seen baatu fer yi alaaji Malick nee na xaraamu na ci ñu koy dégg mista Shamsi duha comme comme comme comme comme jant yor yor mais jën jigéen la ki amagul bàkkaar yàlla topp ko dara ki am bàkkaar moo tax yàlla di wax ça veut que Sénégal kenn ku nekk dangay xool fi la nga nga nga nga rafetal ko li la arrangé nga araamal ko am na ñoo xam ne dañaan football dafa araam te pourtant waaraatekat yi dañu toog di waaraate ci geste yu Sadio Mané def waaw wala déet ah? amul benn amul benn amul benn amul benn imaamu naar bu def xutba ci Sadio Mané pourtant football nee nañ football dafa araam mu jaral ko kon moom nu mu def ba xam Sadio Mané kon imaam baa ngi seetaan du araam coupe d'Afrique bi bi Sadio Mané dugalee dernier bi mënatoo xàmmee kenn gis ko parce que cofeel ci xol la nekk nanu bàyyi yàlla ak jaamam ñi ci maandu téem falaatu zakku anfusakum wa huwa aalamu bi man ittaqa yàlla nee na bu Mouhamed bay sol ñetti abdu ba nga jàpp ni nitu yàlla la bu nit wattu yokk sikkimam cëkkal tubayam ba nga jàpp ni nitu ay baadu la man yàlla maa xam kenn ku ne li nekk ci sa xol man maa la ciy àtte léegi nag problème bi mooy kooku mu ngi wax Sadio Mané am na imaam boo xamante ne boo demoon Géejawaay mun la Balla Gaye fi def nee na bëre dafa araam yonent bi si boppam nee na araam na jullit di dóor moroomu jullitam ba deretam di génn inama amwaalukum seen alal wa aaraadukum seen der wa dimaakum ak seen deret xaraamun aleykum araam na ci yéen ngeen koy tuurante ngeen di sàccante alal wala déet Sénégal boo sàccee saako pombiteer ñu tëj la un an nga këpp kees ñu négocier la parce que am na bokk ci bi wala déet te pourtant kenn dootu looy sàcc. say xarit a lay seet sa waaye organiser ba nga génn si yaay naan di te déwén nga yóbbu sa goro màkk ci li nga sàccoon waaw. bu ñëwee bëri dafa araam boo demoon géejawaay léegi nga dégg imaam bi ni Balla Gaye moo fi indi ay sijaada boo demoon parcelle ñun la Modou moo def ventilo ci margo bi wala moo fi def climatiseur parce que nit ñi acte bi la ñuy topp ba fàtte nangam te yàlla dafa dafa am sutura ci ay jaamam moo tax balaa kenn di séedeel nit ba mu tëdd ci bàmmeel musique dafa araam xam na koo xamante ni balaa muy am 70 ans war na musique ginnaaw dëkk mal yàlla ba yàlla nangul ko Alias Diallo musicien wax na ma ci léegi wax ba am solo dafa ne ma dafay wax magam imaam la mun ko maa la gën a jege yàlla mënu ko lu tax mun ko parce que maa ngi gént yonent bi waaw mu ne ma li ma jaaxal yonent bi bi ma bi ma ko fee bi ma feeñoo ni ma noo tudd dama ne ko Alioune laa tudd ma ne ko parce que boobaa sa jëmm waxul sa ruu mooy wax te ruu caaxaan amu fa sa ruuxu yonent bi mu wax ak sa ruu mu laaj la ko sa tur dëgg ma ne ko noonu la demee parce que nag attation nag tribunal Cyrno du fa dem de. tur dëggantaan a fay dem di. Oh, segam foofu lay dem. ay eh, tax en tout cas nañu suturaalante maam jaara boobu itam baatu jigéen tamit cooli cooli dafa araam pour mu jóg ca kaw waaye est-ce que am na bàkkaar beneen bi ci topp maa ngi koy tontu lancé benn waay bu am ay bu def ay rasta di wax ci wàllu julli ni papa yonent bi daawul julli waxul dëgg. yaayu yonent bi daawul julli waxul dëgg maa ko seetaan ci tiktok bi yàggul mu naqari sama xol lool papa yonent bi diina ja yàlla gërëmoon ca la nekkoon avant l'islam di ñëw fekk na mu dem wuyu ji boromam du woon yëfër nekkoon na ci diine ju yàlla gërëm mu diine Aysa yaayam ci la nekkoon beneen bi ci topp ma indil ko bëyit xakaa suyuuti yu naylal maazinayni najaatan laa tuxil xawlahu wallahu zulkarami pap yonente bi bu bàyyi mag yaayam meloon nee na dinañ jur sang ginnaaw yàlla kii ci topp laa wax xam nga ni papa yonente bi saf na yàlla war ngaa xam ne yaay yonente bi saf na yàlla bàyyi yonente bi li ko wax yëpp yaay yonente bi li kay yu sayiraha sadfan li durratihi aminatu naqir an sairi tuhami jigéen jooju nga naan daawul julli nanu bàyyi fowe diine wala ñuy fowe wàllu yonente bi waaral sa bu dee bu dee tiijaan nga waxal ci sa tiijaan bu dee murit nga wax ci sa murit laayeen waxal ci sa laayeen xaadir waxal sa xaadir mais bul indi argument ba dugg ci askanu yonent boo ci duggee rek da ngay diig parce que yonent bi tolloon na jamono boo xam ne fëgg na bàmmeelu bàyyi mu dekki mu ni ko damaa woote diine bu la fi fekkoon nooy def mu ni ko gëm ko bàyyam kontaan bëgg koo akolaat jibril téye ko ni ko barzaq dox ci seen diggante def na ko way juróom bu jigéen way juróom ni ko xam ko bi ma la ëmbi am juróom weer yàlla wax na ma ko bi nga gane aduna wax nañ mako bi may sukuraat wax nañ mako fi nga tok ci sama ko di génn àdduna ne nañ ma yaay doon yonent mais lan mo ci am bi mu deme ba akolaat yaayam jibril daf ko téye ko barzakh dox na ci sen diggante ndax haka suyuti yu sidaj malik maa suyuti yu moo ko nettali laa tuxil wallahu zul karami ku melni ba yonent bi nak ak yaayam nga nan naan daawuñu julli kon ay xana ay yéefar lan woon bokul dafa bokul ci teggin constitution xaw ma wax ni mu amé ba ku laal Macky Sall ñu tek la dara non la warona amé réew yi julit ku wax ci yonent bi naka sudul noonu ñu fekk la fa nga nek lapp la ba ñepp tek ci bëtt yonent bi li am ci ay tërandoo ku am ci aduna bi barki dem rek and nak señ Axmada benn tu benn jour dimanche ñaari nit tuddandoo ku ne yonent bi nga tuddé sa dom am ku ko dé niko bu la neex nga tuddé ko sa wayjur Cheikh mohammedou Moustapha bu la neex nga tuddé ko yonent bi mu niko nan ko tuddé yonent bi mais tay yar bobu éducation boobu soxna si nag li mu def rëy na parce que tollagul ci am bàkkaar am na xale boo xamante ni gis nga lim am am na xale boo xamante ni ñu ngi koy dugal ci ci ci ma bañ a tooñ ci tele yi di ko jàngaloo wa Youssou Ndour wala wayu keneen di ko dig oto di ko yóbbu ci ay place di ko nàngam kooku lan moo tax lijjanti wuñ ko Sénégal diine ji ñoo metti kon a wax waa Sénégal waa Sénégal da ngay gis ku naan la nit ñi jàppoo du noonu waaw nit ñi jàppoo du noonu nit ñi julee du sàngara ba noppi ah imaam kii mi ngi jéem waa kii mokkal na alxuraan xoola xale yooyu waxuñu ci ñoom te xale yooyu ñu ngi am ay sponsor demoo wax ak seen ay way jur ba pare tourne xool xale bu mokkal alxuraan war war ko encouragé nga naan fa tabaarakallaahu yaa nii li ma ci baatu jigéen dafa araam nangam nangam mais yaa ngi xañ yeneen jigéenu jullit ñi ñu def noonu. lan lan lan lan l'islam lan la man dama damay dem ba dama yéemu jullit ñi. li yonent bi waxoon masalul muminina fi tawaadudihim wa taraxumihim wa taatufihim masalul jasadi ijastaka minhu iduwun tadaa lahu saairu aadaai bil xumma wa sahari yonent bi nee na misaalu julli ñi ci seen soppante ci seen bëggante ci seen bu bëñ di metti bët ni du nelaw tànk bëñ tanewul bu bopp di metti tànk ni du dox communication boobu ñu am seen biir yi yonent bi nee na jullit ñi noonu la ñu mel mais jigéen ju dem jàng alquran ak ni mu tum rànkee nga xam ne liir bu musaana juddu avant yonent bi wa isal maw uudatu bi ay zanbin ñu daan rendi seen ay doom yu jigéen yonent bi ñëw jëlee ko fi foogoon ni bu wanee ginnaaw nit ñi dañuy dellu ci li ñu nekkoon mu génn àdduna ñaata at ci zahir ay siècle siècle ba der bu ñuul ñëw fi xale bu jigéen juddoo dëkk bu ñuy wax Sénégal fekk lo xamanteni ni yalla wacc ci ab yonent la ko wacc bam koy wacc jakarok ay bayam di wax ak ñum gëmuñu ba bayam yooyu juggé fi ba koku juggé fi ba ñi dajalé alquran juggé fi ba ñi bind alquran juggé fi xalé ñew fi ñu jël 114 sar di neexal diko def ci deñam diko neexal di def ci deñam ba mu mëna ko tayil sa mu xol ko remercier wo ko nga tourné di wax ci koku yow lañ wara waxal xolal 114 sar nga jël xalé diko naxtan ba minal jinnati wa nga def ko ci deñu xalé bu jigen mu tok naar ak ni mu rassisté mu war a def tekk ci dëkk bu mu dëkkul xamu fa kenn toog di déglu ay naar yoo xamante ne alxuraan ci ñoom la wàccoon mu wax ñu xale eggali mu wax seen ay doomi réew toog yéen doomi réew toog yow nga nekk Sénégalais nit ku ñuul jàngal la ajam ba nga mën a jël première kooku moo war a raw bu Sénégal jëlee Coupe d'Afrique ñu koy dugal Sénégal xale booboo war a raw kooku dañ ko war a sottil ay libidoor ci kaw tali dañ ko war a sottil ay jamaa ci kaw tali kooku président de war a xajal mu jàll war koo tingom àdduna yëpp teg ci bët te leer na ma ni sax président boo maytul xola teeru bu bu bu oyof lañ ko teeru est-ce que xool nga 114 saar baqara ba minal jinnati wa naas nga mën koo def ci bopp xale kooku sëriñ bi ko jàngal barke alxuraan dañ ko waroon tabaxal immeuble wala château réewi jullit xayrukum man taallama alxuraan wa allamahu bu doon dëgg kon euh, jàngalekatu daara war na fee mën a fay ministre buñ ko gëmoon ñun war nañoo mën a fay ministre waye xolal xale bobu tay léegi nga gis parana ci alcorane bi parana ci mom xam nga luñ ko yene ibi dara tok di jàngale ñi di saw ñi di dem ginnaaw kër mu tok fa di jàngale ta la yamassuhu illa almutahharun alcorane fu laab rek la wara nek la cheikhul khadim waxon ya kitabal karim xarit lay wut aw mako kenn moma ci doy bu dee soppe lay wut kenn moma ci doy yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili yow alxuraan yaay sama soppe yaay sama xarit alxuraan fay ko ba wis ko demal Touba daaray kaamil saa yoo xëyee ñu fay teg cuuraay ñu koy ëpp ñu ngi koy defal ñun ñaa ngi fay dugg di xool te alxuraan ba fa ne mooy alxuraan bi ne maa sa caare yi donc waaye cofeelam donc la ko yàlla delloo di kaamil boobu moo nekk fii boo duggee sama oto moo ci nekk mais nañu defaraat réew mi nit ñi soppeeku yaruwaat mais chaque jour ka ka ka ka may du jógee ci kaa dem ci em wala N wala O wala P wala kii wala R wala S wala T ah mais xoolal lu tax ñu jógee ci A moom ka dafa weex donc juge A B C D E ñëw ba K indi K bi taxaw waaw kaa moom da kaa moo ëpp problème ñëpp waroon nañoo jë mais waroon nañoo jóge ci kaa bi commune saa yi dañ naan boo yaa ngi ci see bi mais nañ dem ci kaa bi nañ jógee kaa dem lambi sedd sax xool lu fa ne déplacé benn benn benn kii sax lettre mais chaque jour ñu ngi déglu koy def guddi ñemewoo tudd tur boo tuddee tur mu mu mu nekk ku réew. boros la am na koo xam ni chaque jour mu wut ku mu boros boo ko boole ci mbir yi mu boros la. te du orma am koo xamante ne daan live nangam nga tudd turam mu saaga la. yooyu la ñu war a interdit ci réew mi ñuy suturaalante waxataane yu baax yi ah loolu foofu lañ toll nit ñi dañuy font. macha allah oustaz xam naa ñu tëjee ci <coughs> coow li nga xam ni dafa nekk ci diggante benn waykat bu nuy wax Bambaly Seck ak benn soxna su ko tuumaal euh, biir est-ce que tamit. Euh, loolu donc mënees na cee sukkandiku pour wax ni Bambali moo jur xale bi wala tamit euh, faaw attali santa xam nga nag li ma lay wax ni la Sénégal bu loolu doon dëgg rek ñoom ñaar ñëpp liñ leen war a àtte dañuy xool Bambali bu dee salibateer la balaa dara di xew ci réew mi. Bambali ak soxna si balaa dara di xew dañ leen waroon yóbbu ku ne ñu ñamal la téeméeriyaat ba noppi ñu doog a lijjanti li ci des. premier acte premier acte bi nu war a njëkk a def. azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidatin minhuma mi'ata jaldatin xolal ñu xamni ndaw si dafa njaaloo ñukoy romb sax jour diko diko diko valoriser diko tek ci télé yi ndeysaan ku nekk nan bambale da wara nangu ñi di tooñ bopp bi ñi di wax nangam wa ndaw si dañ ko waroon door témèr budé musul sey bambale budé musul am soxna ñu door ko témèr ba nopi doog a lijjanti leneen te l'islam da maandu yonam newu ci parce que l'islam loko wul wowul du ñëw sapeur pompier 18 la do fay seen oto doo jënd essence waaye am nañ fayda ju toll ni bu accident amoon sa buntu kër boo leen woowul duñ ñëw. dëgg la dëgg wala déet. sapeur pompier 18 am crédit woo leen ñàkk am crédit woo leen mais ku leen wowul duñ la jël. bi ci des mooy par force du ñuy ñëw amul neexal waaye boo leen woowul duñ ñëw. charia noonu la mel. l'islam yoonam newu ci dafa toog di leen seetaan xam nga fu leen waxee ca départ ba la ni leen yéen ñaar ku ne ameel nga ma téeméeri yat bu ne doon bu bu l'islam doon dem ci réew mi bi ci des mooy yaa ko jur. wala juróo sa conscience xam nga conscience su ndaw si xam na jeex na bu fekkoon te njaaloo la lu lislaam di àtte buñ fekkoon bambaali ci kaw ndaw si kii jugee ngaay kii jugee Tiwaawan kii jugee Thiès kii jugee Diourbel ñun ñeent ñëpp ñu dajandoo ci biir néeg bi la ñuy wax loolu njaaloo tànka loolu amul ma laasaale ci li dal Sonko ku ci wax ku ci wax te wóor la war nañ laa dóor 80 yat waxi Sonko Adji Sarr ku ci wax laa la waxtu wóor la sa 80 ngi lay xaar parce que pour nit con confirmer ko faw ku ci wax nga teg ci bët ñeenti nit yu bokkul ñu ne ñoo ko fekkee wóor na ni moom lañ fekk ci kaw aji saar ñu ni diw mi moo ko fekkee te peine bi du dañ koy tëji police lislaam waxuloo dañu nañ ko door téeméer mu continuer ay soxlaam boo ko bëggee tëj nag am na leneen loo ci làqaale l'islam wax mais ku ko fekkeewul boo ko bëggee dëggal te wóor la bu yowmal xiyaame yàlla dina la taxawal ni la gor yaa ko tuumaaloon yaa ni dëgg la foo ko dégg nga ne aj saara ba ko wax ñun la wóoru la waroon ngaa lu Sonko tamit keneen noonu bambaali taxawal ndaw si rek nga gëm nga ni nga ni ndaw ndaw si moo ni moo jur doom ji ñoom ñaar ñoo nduroo yan saa yi ni ko papa Iran waxee yenn saa yi est nit day nduru nit man samay doom mag damaa nduroog ñoom sama mag yi seen doom yëpp ma la ndurool xanaa kon maa leen jur te man ak seen papa ñoo bokk ndey ak baay te néew ci kër ga yeen say eh, nga gis ñu jël ben do dox ba la gis ku ndrok yow parce que mais nak bi mom nit munu setan nit munu ci weddil comme bayam wax na ci ni mooma na ñepp ni mooma rek yam ca ah, mirasu bayu bàyyu kat bo ci amé nak bu sa bay dee xana di nga ci am gilem bayam mais li ci ëpp solo moy fi nga ma laaj lima ci gëna neex la koy wax ni moy xalé bi ñu wane ko ci internet bi ñëpp gis xale boobu te te olof nee na wax jigul sax bant waxatuma la nit fu ne ñu tourné foo foto xale bi kooku bu màggee lan la war a doon wutal nañ ko wax wayu xas wudul fay ba am yowmal xiyaam sañte reewantooti ci àdduna bu amee 15 ans bu ko góor doxaanee mu bañ mun ko yow doo yam sa baay ak sa yaay fi lañ newoon di nangam mooy xam nga ko koy tontu lool jigéen góor gi mu ni du ma sa morom mm-hmm. nga ni ko bu ma la bañul di ma bañ yow ngay doomu nga ñu baal ma ci kàddu bi yow ngay doomu biiral noonu lañ ko koy waxee. mu tuuse ko da wax ko yaayam lu ci yaayam mën taf ko ci noppam te fekk moo ko wutal way wi. baayam moo ko wutal way wi mais buñ ko lijjanti woon alami yaabul ci suuf baayam di def li ko war yaa ji def li ko war kenn du leen dégg parce que xamante dafa yàgg mais tey mu weer nañ ko. Mm. bu bàmbaali nangoo wax ji na ba dem. Mm. bu gënee bañ wax ji na ba bañ dem ban sens la am lor nañu xale bi lor nañu xale bi lor nañu xale bi te loolu moo ma ci gën a naqari xale bi ñu jàpp te wax jigul bant ñu koy wane ci réseau sociaux yi looloo ma ci gën a naqari parce que man nag jeune laa amaguma 40 ans lu xew ci internet bi xam naa ko. Ah, def dun dund ceebu jën saa yu ñu ko toggee dugal ko ci ay almeer ñaara ko fay lekk kii suul si wala kii gas waaye néew yi duñ ko lekk xale bi dañ ko waroon suturaal mais waruñu ko woon génne ci internet bi mm. ku ne di ci jot ñi ko yar di wax même ñi ko yar sénégalais moo bëgg micro mm. buñ gisatul woon yaayu ndaw si sax. pour man waruñu cee wax parce que coow lu koy fay moo gën lu koy taal mais lan la xale bi juddu na ba pare yow boo juree xam nga boo juru xam nga man dama bëgg sama deret boo dee man la rek ma ni man la kenn du ma ci tëj police ma jël teg ci sama wet boo ëllëgee xaw ma lu muy doon bu may dee xam naa ne duma doon doonu ci miraas ma jël li ma koy teralee jox ko ko jeex na anamu tey ñëpp xam nañ xale bi wutal nañ ko way te nag ñoom fi mu toll ñu ngi seen gundaandaat moom yaajeeg papa ji ñu foog ni ñu ngi ci jàmm mais wutal nañ seen doom way woo xam ni yéen ñaar laay waxal yow ku góor ki ak yow ku jigéen ki wutal ngeen seen doom way wu ñaaw woo xam ni mënoo leen koo xam léegi bu ngeen dundee 15 ans ci kanam ngeen koy xam bi ci gën a bon ngeen commencé di bi jaaw lu waaye nekk ba am jot di fecc daa nekk ci wér mais bu leen 70 ans jubsee 80 ans jubsi leen yow xale bu jigéen bu jur doom ji di nga xam ni jaru ko woon yow ku góor ki jamono wër ñu lay tàcc naan la star nga li nga xamante ni jaru ko woon te lu waay nekkee boo rombee almeer yoo fi xam ni fi ngay mujj fexe leen di suturaalante. macha allah oustaz message bi am na am na solo ñu bëri ñi ñi ñi ñi ci commentaire oustaz gi maanaam bàyyiwuñu xel xale bi bàyyiwun bàyyiwun ko xel. man naqari dama seetaan xale bi barke alxuraan ak ma koo bëgg xaw ma lan la xale bi. dama ko dama ko dama ko dama ko bëgg bëgg bëgg ba bëgg naa ko. billaahi yàlla mooy sama seede après xale boobu moo ma naqari naqar boo xamante ni mooy ñoom ñoo ko koy yóbbee mooy fi mu toll ni xamut lu xew parce que euh, euh, euh, innocente la mais fii ak 10 ans garaawul mais vingt ans ba mu commencé périgu di jaayu te wax a ngi ci internet bi nga tàppi turu xale bi wala turu baayam di wàcc di seetaan baayam ba gis ni baayam lii mosoon na am te kenn mënatu ko supprimer ci àdduna ñu ne ko lii yow la naka la koy dunde xolal papaam mag yaayam jamono jéppante la ñu toll mais jamono ngi ñëw ñoom ñaar la seen doom di jéppi jamono ji papa ji ak yaay ji ñooy jéppante mais na nañu dem quinze ans 20 ans ci kanam ñoom ñaar la xale bi tourné di jéppi te doom boo mënti doon ci àdduna am na pouvoir ci baayam doom président de la république boo ko joxoñee léegi fanaani kaso mhm. doomam mën naa wax ak moom ba sànni ko loxo te du fanaani kaso <laughs> soxnaam mën naa wax ak moom ba gedd kër ga mhm. te du ko sànni loxo tey jii bu doomu Macky Sall génnoon saa wax baayam naka su dul noonu dana naan baayam la te man bu ma ko doon def Oustaz Mouhamed Mbaye jottali ma sama marakis ci oto bi ngay dégg indi leen ma añ mais xale yi nañ leen di sédd may wax sénégalais yëpp nit ñi bàyyi leen lu leen naqari ngeen dem ci réseau sociaux yi di ko fa jooytu gor na nëbbu boppam gor na denc li mu am boo amee lu la naqari demal wax naa ko fu nekk dama koy mujj indi ci internet bi pour mu faju fu muy fajoo ñu la koy xolé surtout walu ëmb nan li sutural xale yi man buñ mako ko ma jël ko wallahi dama xol xale bi rek bëgg ko mu neex ma ma ni man yàlla ma yàlla bal ci chat bi may wax mané ndaysan xolal mu ngi mu ngi kaf ak yaayam parce que vidéo yi play top amna yo yoo xam yaayam da koy téye ci loxo ñuy dox ci ci yoon yi gis na ko mané xolé innocente bi xamut lu xew te moom àddunaam turum dem na international te tekkiwul dara te pourtant toñul dañ ko tooñ bu sañon ni ñëpp di ñëwee ci àdduna lay ñëwee ci àdduna mais après lan lay mer dafa war a déggante ak Sadio Mané ci juum dong boo demee ba télé yëpp di la jël di la invité jàllul fan yii passé amul musicien bu bees bu génnoon chaque jour ñu koy yuuxu mm-hmm. ah, na tey ñu ni ko Val d'Or suba ñu ni ko fële ah, parce que Sénégal bëgguñu ko aay gis nga ki day xox bu am solo bousé këccëb néna na Sénégal bëgguñu ko sérieux xolal koku tay ah ñu ci TikTok bi nga gis wa sanda nga invité ko fu ñu jaay ay dal pour may ko dal ñi invité ko fee ñi invité ko fele parce que lan parce que mom mo xew ñaari ana rang muy gaaw rang muy dem rang muy tok rang muy juk taxaw wa légui ana rang ana rang légui légui dama lay rang moom lan la yok lan la yokal Macky Sall ci réewum mi ah lan nax rang rang lan lañ ko rang rang parce que sénégalais mo bëgg fo président bu ko bëgg a yor di nga sonn que ndaw ñi lan ngay liggéey nga ni man nangam laa damay damay damay dem ci ay jàng rek euh, des vidéo gars yi après naa lool mooy sama liggéey ah jeex na wala damay dem ah gars yi fay ma nangam ma vidéo nangam après jeex na mën nga ko def sa liggéey moo gën sàcc mën nga ko def sa liggéey parce que ki dem di sinaf ci jàng yi am liggéeyam la ko def téléphone am la moo ko moom moo ko jënd kii sinabal keneen moo xam nit ñi kenn ku nekk gëmal li nga gëm te nga defar ko te suturaal sa bopp mais li ma mënta gëm mooy ñu jël réew mi di favoriser ay ñoo xamante ne yokkuñu réew mi. kon kon fi mu ne war war am importance ci coowu Ahmed Cissé beeg bi solo waru ci am. ban solo man Pawlish Mbaye dañ ci dañuy déggante Ahmed Cissé dañuy déggante Ahmed Cissé bu ma nekkee point e ma koy day ñëw ñu toog bu amee Mara problème teel laa toog damay woo Mara. ñum dama am seen numéro mais duma len fréquente nak dama yow Mara ni ko Mara ñass yow ak Ahmed Cissé li ngeen sekk fi xelen mu fay parce que ay nettalante amul sens góor warlawul loolu tele tele la tok wo Mara wo o Ahmed Cissé ni ko Ahmed yow ak Mara li ngeen nek génn len ci amul problème mu defaru duma tok télé di ko tiitaroo parce que li jënt na fi Sénégal ay problème problème problème fi nit day tok ci télé ni serigne tariakh la xas waali sekk wax yaayu waali may dégg ne ma tourné ni ma dama bëgg a gis yaayu ma woo meer Diaga meer Diaga day bëgg a tàkk ci sama kaw ma ne ko yaay bu ñuy waxtaan ak waxtaan leen nit melul ni mu waxee ni mu jëfee la mel mais nga xam ni gor pire la man mu ne ma amee ah, naa daf ma yóox bay say sama kaw moo tax Sénégal da ko ñi dañuy signalé gauche jàdd droit ngay toog ci internet di xas nit oh. toog ci suuf woo nit ni ko xam nga diw nooy def ba nu xamante ñun ñaar te daa la xamal dara coow loo fi dégg boo xoolee ñaari nit ñi muy Ahmed Cissé muy nangam di nga xam li ci dëgg ak li ci du dëgg parce que ñoom ñaari ñëpp da leen di xam. mais doo yow yow doo nit bu bokk ci ñoom pour di lijjanti loolu. li ma mën mooy naa woo Cheikh Cissé Cheikh xam Mara Cissé xam na li may wax ni ko Mara fay leen coow li amul sens woo Ahmed Cissé ni ko Ahmed bu ma sañoon nga bàyyi nangam ni nga koy gis noonu Ahmed Cissé nit ku tabe la ni nga koy gis noonu ku mën a fekk nit li ñuy wax ci saaneex ci jafe-jafe mu yéege ko ci ci ci activité xam naa ko moo tax wax ji bu juddoo rek ñi xamul ñooy saaga mais ñoom ñaar ay nit ñu waxuma ay aay nañ de man fi moom gisuma fi sëriñ bu ay ba ma woolu parce que ñi may fréquenté maa leen raw ñi may fréquenté maa leen dàq jàng ñi may fréquenté maa leen raw maa leen dàq jàng mais jàppewu ma leen sëriñ dama leen jàppe nit yu ma xamanteel voilà sax dama parce mooy ko jàpp ni diw xam naa ko rek sama waay la mu ngi voilà xamant ay xamel lañu man la diw bàyyil nangam diw bàyyil nangam après àdduna continuer mais du ma toog mukk ci télé ni diw maa ko defal nangam wala diw waxal naa ko nangam muy Ahmed Cissé Ahmed Cissé ku ñàkk problème la ku tabe la billaahi wallaahi wa taala nit ku tabe la ni nga koy gis noonu coow li coow li ak sañ-sañam écran bu tàkk la mais nit ku am kersa la coow li li li ngay dégg muy wax noonu yëpp di xaabar xaabari boo koy cotiser muy def teg damay dem këram ñaar yoon ci sama dundu nak damay fekk mbaxane ngaseen yu séra séra séri a seer muy ci buy jël dula may par benn day jël jox la man ko bayil nangam bayil nangam bayil nangam mun ma amul problème nako ko yeen say do ko deg ci coow ma rat ci parce que boko day mara paray nonu mara mune ne ah, man ko mara bayil nangam nangam nangam parce que li amul sens ci seen ay digënté mun ma d'accord ñu déggante après jeex na amul sens may may may may wax ni fi lañ mu julli lañu def mais li te lu nit bëgg a le na koy joxe boo bëggee sutura del suturaalaate boo bëggee xaalis dee ko joxe boo bëggee ay yére dee ko joxe boo bëggee jàmm foo romb histoire wala ay nit ni leen ndax du ngeen àtte ñee mais chaque jour ko romb ni ko asalaamaaleykum ñaari policiers yu taxaw nga naan leen seen yére yi xanaa moom ngeen di sol chaque jour yaa ngi ñaan asalaamaaleykum ñu naan la waaleykum salaam waaye boo moytu kaso ngay fanaani ndax yére policier bi muy sol chaque jour sa yoon waaw yàlla yàlla defal dégg ak ñun nañu ma jéggal kàddu yi bu fekkente ni juum naa may naa sa ndaw ñëpp nañu bàyyi di saaga ci internet ndax am na ñoo xam ne ay nitu yàlla lañ bu seen jëmm waxul seen martaba dina la fa fekk te arab nee na al martabatu laa tusaamih martaba du baale kon nañuy xam li ñuy wax nañu am teggin nañuy ormalante bërki démb dama gis ku saaga benn ibaatu saaga ndey bu ñaaw a ñaaw dafa naqari ba ma commentaire si dama ne ko koo xamul papaam ak yaayam fuñ ko jure nga tëb di ko saaga ba saaga boobu naqari ko mu def ko ci miiru tiktokam parce que nit lim la wax bu la boo ko gëmul rombal dem. alaaji def nii TikTok nit di waaraate lu la arrangé wul tëbal man sëriñ sii di joxe ay turu yàlla ak xasuru naag nangam duma la déglu dama lay tëb xam nga lu tax mooy gis nga turu yàlla dafa laaj xam gu mat sëkk xam laaj at yu mat sëkk xam seetlu gu mat sëkk boo ko defal ñett la ciy fekk dem bàmmeel mbaa nga yëgi yëyi sagar mbaa nga ñàkk ñàkk nga dootul am abadan xale yi ne ci tiktok bi tey déglu sëriñ ci joxe ay tur yàlla laa wax ni nanu leen moytu turu yàlla dañ koy tarbiya mu jaral la nga am loo ci ñàkk waaye chaque jour nga romb ko ci internet bi rek mun la damay seet damay liste xaar tur bi boo ko liggéeyee am xaalis xaalis kenn du ko wérd dañ koy liggéey alaaj yàlla tabe na lool waaye du yónni malaaka mu ñëw di la jox boo tëjoo sa néeg bi te liggéey yoo doo am wajaal na layla wajaal na nahara nit ñi dem leen liggéey te bàyyi ñi ne topp ci internet bi naan la boo wér dee nangam am nangam boo wér dee nangam wérdu yooyu ñu leen di jox dafa am charte charte bi li koy def mooy ragal yàlla yàlla nee na boo ragalee boo wér dee mu nangu waaye bu fekkente ni yaa ngi njaaloo subaa ngoon guddeeg bëccëg yaa ngi jaxase subaa ngoon guddeeg bëccëg bu dajale woon turu yàlla yëpp sangale ko du tax nga am am na koo xam ni laalul turu yàlla te foo ko fekk mu ngeek ay milliards am koo xam ne mu ngi fanaan ci sijaadaam bu xëyee amut lu mu ndékkee am alal taxul yàlla bëgg la wala mu ñàkk laa bëgg ala min machiatillahi ci coobar yàlla la nekk dem leen ngeen liggéey ngeen bàyyi ñu ngeen topp ci internet bi ñu leen di nax man fu ma leen romb aj du ma leen seetaan bu ma rombee sëriñ romb naa la parce que du ma la déglu rawoo ma rawoo ma di wallaahi rawoo ma du ma la déglu bu ma rombee kuy wax lu bon ma xool kan lay waxal xool lan lay wax ci moom pour ma mën cee jàngat àdduna lépp jàngat la waaw wala déet xanaa xamoon ni góor du xuloog jigéen ci téléphone rawatina ci ci ci ci whatsapp góor du xuloog jigéen bukk ko ci whatsapp ñaar ñi bàyyil xel li ma leex bu baax foo leen fekk dañ ñaan la merde lañ bind seen ginnaaw cagaak góor jigéen man de sama ginnaaw merde laa ci bind koo dégg mu koy wax góor jigéen la man de sama ginnaaw merde laa ci bind koo koy wax caga la nag boo melee noonu bañ ku la fexeel ba di leen daw mhm. waroo leen sax di leen ferekante ba sama papa garçon yi nii ñu leen di wax yëpp ngir mun ñaaw daal yàlla nañu yàlla defal dégg topp alaaji da ngay xëy rek dégg nit ñi faatu nan yàlla moo baax xëy di déglu nit ñi rek <laughs> ñuy def lu leen neex muy denerul rek ndeysaan ngay ngay mooy rek mu te mu teg la ci njoowaan ngay joowu rek ngay naafile rek nga foog ni zikar moo lay may alal ki kii sangu zikar di yonent bi yàlla dafa ni ko walal axiratu xayrun laka minal ay bu ñu dajee yowmal qiyaam wala saw fa yootii kara bu ko fa tarda daan na toog ñetti weer ci ndu tàkk këram xam nga lool. koo xam ni man ndax nit ñaa ngi déglu li may wax ginnaaw yàlla moo ci topp. xaatim sax boo koy defar turam nga koy yibbee xaatim turam nga koy tëjee allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim kooku ngay tëjee xaatim kooko daan toog ñetti weer ci ndu tàkk këram kooko daan toog weer bilaal moo koy may da ko ceeb. xaar ma wax la ko ndax wóorul nit ñi tam ñu ni du dëgg yamuru daan na romb sëhrun weer awi sëhraani wala ñaari weer min zamanin wala lu ko ëpp walam tara du gis na bët fil ab yaati biir kër yonent bi min a xidam cin di fa tàkk lëhu daan na toog salaasuna yow man 30 jours yoo xam ne maa ya zuuxu du ñam siwaa maa kaana ibutu bilaalin lu tolloog poqotaanu bilaal damma min a taam moom la ko daan may pour mu dundee ko kooku te yàlla ni ko lu ci gën yàlla nee na ko soo fa ñëw ti garab bu fa tara yàlla wax na ko war a faax naa la ko zikiraka amul lu ko yàlla teraleewul saa yu ko garab rombee ni ko damaa bëgg doon xaalis nga jëfandikoo ma dafa naan ko déedéet afala akunu abdan shakura ndax du ma nekk jaam buy sant bu ko montagne ne mën ñoo doon xaalis mu ne déedéet ñu ne ko lu tax mu ne yonent yàlla idrisa dafa waxoon rabbi hëbli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yàlla may ma nguur goo dootul may ci sama ginnaaw te bu ma ñaane yàlla mu may ma ma weddi ñaanu yonent te dinaa ko sagal ba yowmal xiyaam moom idrisa te bokkuñu génération ñooñu fa ñu jaar yow nga jàpp ni balaa maa dee ñu naan xasida yi moo ma def lii mais da ngay sol jeesneer bu rafet ni dàq la jeesneer daf lay jombe loolu bon bamba yow ñemewoo tuur ndox ci mbedd Serigne Touba moo def ci yow boo romoon oustaz Mouhamed Mbaye mu yor cigarette nga bi la ma jombale mais jombalewu ma ay oto jombalewu ma jeesneer ay étage yu rafet loolu nit la programme la maa ngi ci du du du alal wërsëg la kër am na koo xamante ni kër gi mu ne moo ko moom saa yu banque day day xooli borom location ñaan ko lu mu dépenson donte kër gi dara newu fa waaye am na kër bi ci des mooy yoonu màkk du ko am alal yàllaa fay woote wa azina wa azina finnaasi bil xaj yatuuka rijaalan bari na ku jóge màkk am problème mu dépense bi ci des mooy oto du alal wërsëg la am na ko am oto ñàkk essence bu mu ci def ba fay 150 jël biis xëy pour mën a def def naa ko bu def naa ko man mi xola oustaz Mouhamed Mbay yab naa sama oto ay nit parce que dawal dem bi amul sens waa ji ne ma oustaz ma ne ko labbayka pour parce que damay ñaan yàlla yàlla yàlla dindi rëy ci sama bopp xolal euh, aka doon neex caméra bi di continuer xam nga bërki démb lu ma jël biis xam nga lu ma ci nam pour natt sama bopp est ce que man war naa ne kuréy may kan xanaa duma jaam rek lan laay jaay lan laay tiitaru ma mu jaaral ma ma dem jël biis dugg ci taxaw tooguma de damaa dugg jàppandu pour xool ni man. ah ah. <laughs> waa bis bi di ma joxoñ xale bu jigéen bi ma dendal chrétien la xam nga lu mu wax uh-huh. oustaz dama laa sopp uh-huh. xale bu jigéen bi dendal chrétien la mu ne ma oustaz man dama laa sopp dugg ci biir biis bi ma jàppandu ci biis bi dugg toog te taxaw te dérangé wu ma yooyu dama koy def pour acte lan pour na ma yàlla dindil rëy ci sama xol lii du biis maa ngi nii ci biis solu ni may soloo solu ni may soloo jël biis fay cent franc xam lu tax yàlla yàlla bu ma yëg ni man mii li may waaraate ci télé bi damaa gën mbindeef bi ci biti ma taxaw ñooñu ni ma ni leen ñaata waa ji di ma six mille six mille la man sama to cette place la imagine cette place six mille cinq mille mu dajale ma six mille ma jël trois mille jox leen wan ni ñooñu damaa bëgg def sama bopp taalibe damaa départ tolloog station bi xaalis bi laa jëndee essence kenn ku ci nek wacc fi nga jëm man leen xam ngeen luma ci nam ñu ne ah, man leen parce que dama bëgg wan ni yalla buma gene aduna sama personnalité duma sul sama dara ju duma sul ay loxo ñomay sul man lo la gëm bu ma génnee yenn saa simi sama mbaxane dox nangam nangam mais feeñtele da tax nga gën ken nek musicien da tax nga gën ken nek mbeur da tax nga gën ken mbeur mi ngay beurel mo lay may xaliss yow Oustaz mohammed bay ñi lay deglu ñol def star buñ la tuddul am fi way kat yo xamni fay nañu te ñu ngi ci réew mi di way te kenn déglootu leen <laughs> alaaji yàlla na yàlla defal dégg topp Sénégal mu ngi noonu rek. di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom oustaz Mouhamed Mbaye macha allah ci moom moom xam naa ni wax fa dëgg yàlla mooy sunu oustaz ndax tamit dégg gi mu dégg jamono ndax it ay ndaw boo leen di waar. il faut nga xam ci lan nga leen war a waar moo tax tey macha allah euh, ci ubbeeku ouverture gi moom ak it moom foo jaar yonent bi la bëgg sallallahu alayhi wa foo jaar mu laawaale ko mooy exemple am yonent mooy royuwaayam yonent bi ay léppam sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal suñu borom defal ko àgg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 def de àndandoo do dox di si booru do de wóor daa